Gracias, asfari asaliti zindala kër latifun bima fi nafsi wa ma isri Marcita. Mustafa

Listen, listen, listen, taxaw jubal taxaw jubal taxaw. sëñ bi sëñ Ba la jël jubal taxaw jubal taxaw. jub taxaw yemal si yàq doo fa taxaw doo fa taxaw. jub taxaw yemal si yàq doo fa taxaw doo fa taxaw. jub taxaw yemal si yàq doo fa taxaw doo fa taxaw. ngay jiitu. naan innal malaa'ika tu'minu bil malaa'ika. ngay yaa wal malaa'ika tu'minu bil malaa'ika. ngay yaa wal malaa'ika tu'minu bil malaa'ika. ay way yaa wal malaa'ika tu'minu bil malaa'ika.

Gracias. Muhammad waay akrim bi ansaari nabi Muhammadin usdan wa akrim bil madinati xiina Ana sukul kita, sukul sama. Ayo, di tanah moo

يعمل بعدنا ما ذكر وإياك نعبد لقد جرينا إلى الأرض وقد كذبنا كهم يا جرينا إلى الأرض لقد سجلت كهم يا جرينا إلى الأرض لقد سجلت كهم يا جرينا إلى الأرض لقد سجلت ربيا لنا إلى الأرض لقد سجلت ربيا لنا إلى الأرض لقد سجلت ربيا لنا إلى الأرض يا سجلت Yeah!

جبل وبقرب تأمره وإن فراغ منها إلى جاي يسكنون تلفوا فخير مقبول وإن تلفوا فخير مقبول وإن تلفوا فخير مقبول وإن بحمس بن جلي بحمس بن جلي خمس بن جلي

moom a Diop xol bu rafet la yor lu ko waay miin miin boo jëflanteeg moom xam ne xol bu rafet la yor yàlla seede na bi ñuy ñëw laa naan Màggat Diop mosul jóg ci benn programme bu ñu organisé ci Dakar gi muy man muy abu Seck mii lu dul daa jeex yàlla seede na ko ca boobu ak seebu ma ci tànt bi yàlla yàlla fay ne ko bàyyi Mbacké Diop ñu ngi lay ziar bu baax di ziar Serigne baax ak euh, tabarakallah mo ko anda ngang ko mi buga sri wali leza sindar kasan jërëjëf Mouhamadou Mahfouz xam naa ne képp ku ñu tudd rek ñu ngi lay jégalu bu baax ni programme bi demee la maam Bakar ñu ngi lay wax ni dalal ak jàmm ak délégation bi Hare Hare Hare Hare سليم محمد ما سالم حقا أطوه وخلوة أزماني وما لا إله من بعد يا وإيمانا I'm not going to émission bi nag ci ndigalu jotaay na bi lañ ko defee tabaarakallaa bu ko defee yàlla na yàlla barkeel sëñ Lise jërëjëf mu na bi yaakaar naa ni li may wax mooy nañ defaraat toogaay yi nañ defaraat bu baax gëm naa ni képp koo xamante ni am nga lenn ci cofeel ci Seydina Mohamed sa xol dina sedd tay bu ko defee rek ñu fàttali leen programme bi ni mu demee mu nekk sixième édition takkusaanu Seydina Mohamed mu si delloo njukkal borom yàlla nee na Serigne Madick Seck yal na yàlla dolli ay leeram bu ko defee rek Maguette Diop yaakaar naa ni mi ngi dugg si tànt bi waaye ñu fàttali leen rek ni bés bi dañ ci am ay sunuy mag yu baax ñoo xamante ne bi dañoo génn àdduna ñu leen ci ñaanalaale maanaam di leen ci rendre hommage bi ñu xëyee bi ñuy wàccee kaani ñoom ñëpp bi ñuy jàng xatmu bi ku si nekk tudd nañ sa tur ñaanal la yàlla dëkkal la jànnatul iliyina yàlla yàlla ñaan yi bu ko defee rek ku ci mel ni Serigne Madika Diop dañ koy rendre hommage ak Serigne Maguette Ndiaye Serigne Gora Gueye ak Baye Ibrahima Seck Yaraax Serigne Massayar Ndiaye Pikine Baye Ablaye Ndiaye Ndiaye Serigne Bamba Tambédou Serigne Bamba la Tambédou Ibrahima Wele soxna Daba Faye ak soxna Fatou Samba Ndiaye soxna Ndey Sarr waaye tamit soxna Binta Fall soxna Mati Soare ak soxna Boussa ak soxna Aïda Diaw ñii mooy ñi nga xamante ni bii Serigne Maguette Diop ci xolam bu rafet waaye tamit ci xalaat bu rafet ak bés yi nga xamante ni bii bes la bu ñuy yaakaar ñaan yu nangu bi ñuy xëyee bi ñu wàccee kaamil yi ñoom ñëpp ñaanal lañ leen ñoom ñëpp seen i njaboot ñu ngi toog si biir jotaay bi dinañ ci ñëwaat ak ñi nga xamante ni bii ñooy parrain yi dinañ ci ñëwaat ak marraine yi ak invité d'honneur yi li ñuy def rek mooy. Serigne Moussa Laye mi ngeen xam yaakaar naa ne bu duggee tey daaw liñ fi defoon ba tey yaakaar naa ne mi ngi fiy tege Serigne Moussa Laye moomu doon kenn si Maguette Diop waaye tamit doon kenn si Yaraax moom la ñu bëgg mu ñëw moom itam indi participation kon Serigne Moussa Laye fépp foo toll di ñu dégg rek ñu ngi lay wax ni tafalal bismillah waaye ci biir délégation bi rek bala ñuy continuer ñu tukki si ñenn ñoo xamante ne bi yegsi nañu ci biir jotaay bi ñu njëkk ci góor ñi ku ci mel ni sëriñ Ibrahima Ndiaye gis nañ ko yegsi na ci jotaay bi ak ki nga xamante ni bii moo di sëriñ Assane ñi ngi moom itam di nabiyee di tàggat Seydouna Mohamed am bés bu mag bu muy def fële ca Zag Mbaaw kon sëriñ Moussa Laye yegsi na bu paree rek dina ñëwaat ci délégation yi nga xamante ni bii teew bi fi. yal nañ yàlla nangu ci barke Seydouna Mohamed. mboolem ñu fi ñaanal rek yàlla ak yàlla donc am nañ ci yaakaar yàlla na ko yàlla def ku fi toog rek yàlla yàlla fekk saa di ziyaaru ba El Hadj Madiène Diop mi waral jotaay bi yàlla yàlla sàmmal ñu ko yàlla yàlla fayal ñu ko ci xiiwal bu tedd bu mag bi ñu boole. di ñaanal yarax gi yëpp bàyyi njëkk ñu ngi lay ziyaar njabot gi di ñaanal sama waa ji moo di ñañ ak mboolem fi toog. yàlla yàlla faj sa aajo yaakaar naa ni lu bi xajal sa cin bi dañuy barkeelu tuuti rek daal di def may waxtaan baril kaa fi aaxiri zaman damal yarwaaw ma jawaayib nga xam baat

Samsung. Right. ويزوك إلهي ولا يدف في جوار أبدا ويزوك رحمتي yaakaar naa ne dégg nañu bu baax a baax a baax si prestation boobu kooku mooy Serigne Moussa Laye di taalibe taalibe Baye Seydina Limaamu Laye yal na yàlla gën a wéeral baat bi yal na yàlla yokk gën a yokk sa tawfeex gën a yokk sa teraanga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 daaraji bisam suti bi la ni ba aljana ay waay di ko bege waay ba aljana ana ba aljana ay ba aljana waa ba aljana